lu ñuy wax temps d'observation temps d'observation lu muy tekki mooy comme ñoom ñu ngi soog a ñëw nañ leen may au moins ñu tekki seeni bagage wane fan lañ jëmale réew mi loolu nag dafa nekk yoon dafa nekk lu jaadu politique engagement boo si mënti am dafa war a rekk méngoo ak sa bëgg-bëgg réew nit sooy politique da ngay jiital sa réew moo tax luñ ci xam ak luñ ci jàng ak loo xam ne ñu ngi ci constant depuis des années mooy mettre l'intérêt des Sénégalais au-dessus de tout autre intérêt moo tax lépp luy am taxawaay bu mel noonu rek lañ si mën a am ba may ñëw damay indaale benn journal et c'est le de remercier la presse parce que seen taxawaay moo tax ñun homme politique yi lu ñuy wax nit ñi mën ko dégg journal bi def na vingt ans 2024 la woon 2004 la woon c'était le 8 juin 2004 ñu ngi ci 2024 ça fait 20 ans le journal bi soo ko ibbee ci laa njëkk a def sama contribution pour engager wu pour mon pays mu ngi nii ngeen gis ko ma signé fii Thierno Bocoum loolu lu muy tekki mooy ça fait ñu ngi nekk au service de notre pays vingt ans yoo xamante ne nag su doon mbër la dañu naan dañoo mbappat nekk nañu responsable national des jeunes nekk nañu responsable de la communication nekk nañu leader politique loolu moo mujj ndax ñi fi nekk lu ñuy doon jeune jeune jeune ci politique ñoo ma njëkk ci leadership politique parce que man sama pa sama mouvement maa ngi ko créé en mais bañ nekkee ci échiquier politique bi ba léegi amul benn moment benn combat boo xamante ne am na ci réew mi te dugaluñ ci suñu loxo muy combat de principe amul benn combat buy am ci réew mi te nekkul combat de principe dénoncé wuñu ko amul it benn nguur bu mësa toog te mësuñoo woo pour ñu ànd ak moom amul parce que lenn rek lañu bëgg mooy rupture lu dul rupture nguuru la lu dul rupture nguuru la oto la sa moroom yoroon jële nañ ko fi nga jël oto bi essence la sa moroom yoroon jëlee nañ ko fi nga jël essence bi bureau la sa moroom yoroon jëlee nañ ko fi nga jël bureau bi waaye li am solo mooy ndax yaa ngi doxal politique gu rupture moo tax fépp fu ñu ko gisul taxawuñu fa. mais ñun nag xanaa xam nañu luy xeeñ xanaa ñun war nañoo xam quand kan moo war a mën a gañe résultat yi nan la war a mën a demee nan la ñu war a mën a positionné woo kuy wut nguuru loolu dalay yomb waaye kuy wut rupture lépp lu feeñ ci ngoro danga ciy teey balaa muy tas sëy moo tax lii ba mu commencé muy ñëpp jëm pour ñu jëm ci alternance jàpp nañ ne loo xamante ne ñor na dañ ko war a yàq moo tax defuñu dara pour empêcher loolu waaye teguñu ci suñu loxo ndax bëri na loo xamante ne tey na suñu xel waaye lu tey sa xelit lu mu téye tey sa xel da ngay am yàqin ne nit su wootee ay nit na leen lii ngeen di combat xeex bii ngeen di xeex même soo leen fi ñàkkee seen bakkam dafa mel ni directement àjjana ngeen jëm jàpp nañ ne kooku peut-être circonstance mën na tax mu def yenn yi waaye bés bu toogee pouvoir comportement bu mu nar a am comportement bu irréprochable lay doon parce que bu mu fàtte ne am lu ñu mu woon ci combat bi ba ñàkk seen bakkan moo tax lu ñu mënti def en terme vraiment de de de de toog bañ a d'accord tey teewul ñu am espoir que dañuy dem rupture moo tax dès le début dès le début ñu ñu baal ma am na ñuy wax ci ginnaaw ñu mënee déglu ñu baal ma rek parce que saa nous damay obligé di wax foor pour ñu mën ma dégg moo tax dès le début dañoo ne nañ leen may ay circonstances atténuantes gis ngeen ñu def déclaration daal ne ñu ngi féliciter le président Bassirou Diomaye Faye gis ngeen ci biir déclaration bi ñu féliciter ñi nga xamante ne nommé nañ leen ay poste ministre te ñu gëm na ne am nañu profil bi féliciter leen encourager leen tamit ndax sacerdoce la gis ngeen boobu léegi ñu accompagner yenn yi kon boobu ba léegi position bu ñu am mooy nañu encourager nit ñi pour ñu dem vers la rupture définitive parce que sénégalais yi loolu rek la ñuy xaar xaar ñu leneen mais depuis boobu ba léegi yàggatul le temps que ñuy joxe délai d'observation mu am koo xamante ne ñëpp di ko xaar ci résultat mu jug kenn xamul lu tax di attaquer nit ñi di wax lu ko neex di def lu ko neex muy le premier ministre Ousmane Sonko. moom comportement boo xam ne daf ci wane ñett benn bi mooy respecté wul les institutions de ce pays boobu mooy bu njëkk. ñaareel bi mooy respecté wul les sénégalais ñetteel bi mooy luñ ko dénk àttanu ko il n'a pas pour être un premier ministre bu si ne dinaa leen jox firnde yi respecté wul les sénégalais respecté wul institution yi amul capacité nekk premier ministre luñ ko jox àttanu ko. respecté wul institution yi nag su ma ko waxee yéen ñëpp seen xel day dem ci mbirum coowum déclaration de politique général bi coow la boo xam ne ñu ngi koy gis boobu ba léegi gis nañu ñoo xam ne sax ñu ngi ciy bëgg a profité doon défendre régime bële léegi ñuy wut transition pour défendre régime bu bees bi naan ay juriste lañoo ñoo ay lii la ñoo ay lële pour mën a jox dëgg. loo xamante ne premier ministre def na ko gis nañ lu ne mais Sénégal kenn du ñu fi jàngal loolu yëpp li nga xamante ne moo am mooy déclaration de politique général bu ñu boo bëgg a boole ak mbirum assemblée nationale bokkul amul benn relation bokkul pourquoi assemblée jeune assemblée nationale. règlement intérieur assemblée nationale su amee problème mbirum député yi la député yi ñoo war a gérer loolu seeni mbir la mbirum déclaration géné déclaration de politique général constitution moo ko consacré en son article 55 te bu leen yem rek si ne article 55 bu constitution bi la da ngeen di dem ba xool fan lañ ko dugal si constitution constitution dafa am ay titre dañ leen naan du président de la république titre 3 du gouvernement titre 4 de l'opposition titre 5 de l'assemblée nationale titre 6 si biir du gouvernement fa lañ fa la article nekk maanaam prérogative yi ñu jox gouvernement jox ko premier ministre foofu la article 55 nekk constitution daf ko ne yow suñu la nommé da ngay dem defi déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale c'est une exigence constitutionnelle kooku deful lu ko constitution wax mu dem di xool lu xew assemblée nationale naan dafay joxe ay ordre voilà la gravité de la question xoolu lu ko constitution wax mu dem di yurndu la moo xam ak xew assemblée nationale loo xam ne yoonam nekku si moo tax bu ñu jaawale dafa am déclaration de politique général bu nga xamante ne ne constitution moo ko teg mu am loo xamante ne ne règlement intérieur la assemblée nationale moo koy ger léegi nag dañ ñëw ci assemblée nationale balaa may leen di firndeel ñett yooyu ba leen wax léegi assemblée nationale bi ñu bëgg amaguñu ko te xam ngeen ay député yu yu xarañ mosul ñàkk Sénégal législature bu mës a am dinañ leen ne député bii macha allah député bii macha allah député bii macha allah mais luy manqué mooy action de groupe yëkkatee ndoo dóorandoo loolu mooy assemblée nationale. ndax tey soo xoolee mbir mi ñan ñoo ko yëkkati tudd nañ fi Mamadou Lamine Diallo tudd nañ fi Théodore Monteil tudd nañ fi Doudou Wade tudd nañ fi Guy Marius ñooñu ñëpp xam nañ ne ay député yu baax lañ yu am yu xarañ lañu d'ailleurs dama bëgg a taxaw tuuti def témoignage si ñaar si ñoom ba ñett ba ñeent ñoom ñëpp sax soo leen bëggee mais Mamadou Lamine jàlloo bokk na man personnellement bokk naa ak moom douzième législature bokk naa si ñu mu encadré mën naa wax sur les questions économiques bien que man en dehors le fait ma nekk juriste am naa diplôme en sciences de gestion mais bokk na si ñi ma guidé muy nit ku généra nit ku am xam-xam muy député boo xamante ne législature bu ñëw mu waree fi boppam ku mel ni duudu wàdd moom ma njëkk wax na ma Thierno ba nga taxawee ne xaalisu assemblée nationale nañ ko leeral est-ce que xam nga ne tu as été le premier sénégalais le premier député de l'histoire politique du Sénégal bu ko mus a wax yaa mës a bëgg a taxaw ne nañu leeral alalu assemblée nationale ba nga nekkee président commission comptabilité muy koo xam ne ba mu nekkulee député boobu ñu nekkuñu député ba mu koy nekk nekkuñu ko mais ba léegi à chaque fois dara am dina def effort gëstu wax leen lan la ci xalaat kooku dafa waroon toog assemblée nationale warul jóge assemblée nationale Théodore Monteil xam ngeen ko ñoo bokkoon aar Sénégal mu doon koo xamante ne ne xam ngeen xarañam ñu mel noonu sénégalais yi dañ leen war di ràññee su ñu nekkee ci ay liste ñu fexe ñi ci yooyu jàll. Guy Marius Sagna liggéey bu muy def ci assemblée national ñëpp teg nañ ci seen bët dañ ko ciy félicité encouragé ko ci sama xarit la sama frère la bien que am na yoo xam ne d'accord wuñu ci et c'est normal en démocratie ne pas être d'accord c'est une très bonne nouvelle. parce que jàpp naa ne député bu war a yàkkamti exécutif ñëw nga contrôler ko di yow yaa war a wax premier ministre bul ñëw yow toogaloo exécutif assemblée nationale nga toogal peuple bi nga toogal mais ñoom ñëpp suñu wanee loolu alerte depuis le début mais lu doon xaar mooy mu am une action d'envergure parce que falsifier règlement intérieur assemblée national lu garaaw a garaaw dafa mel ni sénégalais yëpp toog tënk ci dara yow nga toog dugg sa bureau walla nga toog fu la neex walla nga dem imprimerie changer loolu nga xamante ne sénégalais yi def nañ ko parce que assemblée nationale c'est la représentativité nationale loolu lay tekki donc loolu lu ñu war a gëstu la ba xam fan la